vraiment mu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo. docteur Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane émigration irrégulière muy mbëkk mi ay ndaw depuis presque 2006 2007. ci la phénomène bi en tout cas gën a yokk ndax mënuñu ne ci période boobu la commencé mais ci la ko mm-hmm. nit ñi gën a découvrir mm-hmm. ñu bari di ci ñàkk seen bakkan ci géej gi régime Diop en 2012 affaire bi continuer régime Diogaat en 2024 mbir mi continuer mm-hmm. état xanaa dafa impuissant face à l' émigration irrégulière tu pale de l' en tant que tel. mais en fait problème bu complexe la parce que su fekkoon nit kii ñàkk rek mooy dem nga ni ah problème bi kat ñàkk moo tax lii am da ngay gis koo xam ni mécanicien la mu jaay lépp lu mu amoon fay ko teefanke gaal yi pour dem nga gis koo xam ni tailleur la woon mu jaay li mu yoroon yëpp fay teefanke gaal yi pour dem nga gis koo xam ni waa kër gi ñoo cotiser fay teefanki gaal yi mu dem donc mbir mi ci xel yi la nekk moo tax dañu war a benn teefanki gaal yépp ñu daan leen parce que jaaduwul. mooy ñuy wax ay passeur. le passeurs ñu déggul wolof yooyu. waaw man dama. <laughs> bien wolof <laughs> c'est xam nga doomu pël laa donc <laughs> kat baatu pël yi lay jël. teefank yi. Mhm. dégg teefank yooyu ni leen war a jàpp. ak nu mu munti demee. moo tax pour xeex affaire bi. Mhm. dafa am solo trop sénégal yi xam ni kenn d'abord warul bàyyi sa doom mu dugg ci lu mel noonu parce que dafa mel na xaru parce que xamoo di nga àgg mbaa doo àgg mhm. beneen bi moo di. ñu ku ku gis ñu koy organiser nga dénoncer leen ngir nag ñu teg loxo ñooñu nga xam ni ñu ngi jëfandikoo alalu nit ñi te di leen sànk beneen bi mooy liggéey bi nga xam ni ñu ngi ko tàmbali di def mooy lu lu ñu mën a yaatal xëy bi ñu yaatal ko su ñu ko yaatalee xale yi mun a am liggéey wante balaa boobu ni nga ni nga ko waxee sànq ndar sottul ci benn bés balaa boobu mais li fi kii jóge bitim réew di ñëw soo soo soo seetee kii YouTube da ngay gis ay audio ay vidéo yu bare ay waa bitim réew yi li wax Sénégal di ñëw leen ndax Sénégal neex na am liggéey ndax liggéey yu sew sewaan yëpp Sénégalais yi soxlawuñu ko mais milliardaires yu bare ci liggéey bu sew sewaan la ñu tàmbali donc nañu bu ñu xeeb suñu bopp suñu réew te bugg a dem ci réewu jàmbur def fa loo li nga xam ni sa dëkk yow danga nga def ko donc nañu wëlbati xelu xale yi ñu jàppale leen ni leen seen réew su ngeen ko defarul keneen du leen ko defaral réew mi ngeen jëm muy Espagne muy France muy euh, Grande-Bretagne états uni ak feneen su melee ni mu mel c'est doomu réew yooyu ñoo ko defar donc yéen it góor góorgóorlu leen ngeen jël li nekk ci réew mi ngeen sukkandiku ci pour defar seen réew bi mu daq réew yooyu. discours bi du tey lañ ko dégg. yàgg nañ dégg du tey mais dañ koy. baamtuwaat yàgg nañ koy dégg est-ce que loolu kese doy na ndax li ñuy gis image yi day choquante. nit ñi daanaka dëgg naa sax lii na la mën a xewee surtout phénomène li xew mbuur euh, ñu jël ay nit teg leen ci ay pick ay néew euh, di ñaan yàlla yàlla xaare leen àjjana ñu teg leen ci ay pick-up mu romb ay nit terewul euh, quelques jours après des fois yooyu day am dangay ngay déggaat que ni am na beneen gaal gu doon dem des fois tere nañ ko yenn yi aussi mën nañu àgg Espagne finalement kon nit ñi faale day mel ni li ñuy wax duñ ko dégg dama ni bés bu nekk gendarmerie police ak marine ak yooyu yëpp jàpp ay gaal delloo si leen wante dafa am ñoo xam ni loolu la ñuy commercer mooy ñi may wax teefanki yi ñooñu loolu la ñuy commercer ci loolu la ñuy jéem a mépp xale yi di leen wax ni su ngeen demee fële kat di ngeen am lii di ngeen am laa hmm. te dëkk yooyu léegi neexatul boole ci neexatul li gën mooy nga nga nga dem def sa formation nga seen réew mi signé na bu fi ministre premier ministre Espagne ñëwee. signé nañu ay accord accord yooyu benn bi c'est pour faciliter dem ak dikk bi pour liggéeykat yi en Espagne pour que yow soo entreprise espagnole mun nga nekk Sénégal entreprise espagnole jël la ñoom ñoo lay régler sa papier yóbbu la nga liggéey juróom-ñeenti weer baa nga liggéey juróom-benni weer après nga dellu si su su waxtu bi nga war a liggéeyaat nga demaat. boo loolu moo gën. loolu moo doo am benn jafe-jafe. beneen bi mooy lii dindi lii li ko ëpp xam nga am na réew mu mu mus a am. Vietnam de ci anglais ñu teg le boat people mais Vietnam bu mu régime am def projet bi ñu taxaw léegi dégg toog toog ñun tamit suñu réussir teg suñu projet yi yàlla yombalal ñu ko ba mu taxaw. lii dana wàññeeku wala dana communication bi aussi yéexul ñu jeexale foofu ndax gis nañu phénomène bi ba avril ba euh, bi président di dem mbuur mbir yi mi ngi doon xew dem mbuur gi après lañ lañ ko gis après li fa jot a xew yëpp quelques jours mu mu dem fa massawu ji famille yi jaale leen defaale fa discours pour wax ak ndaw ñi mais est-ce du loolu lañu war a na teel a commencé profité aussi des 54 pour cent yi nga xam ne xëy na déggal na leen ak ndaw yi nekk seen ginnaaw di ci communiquer mais day mel ni li xewoon la ñuy gisaat mooy émigration régulière day am ay nit di faatu duñ gis sax régime bi wax ci wala di joxe nombre de décès yeeg ñoom seen euh, jox ñu au moins un bilan euh, ci li nga xam ne moo ci jot a xew yëpp. non defe naa ni régime bi da cee wax xam nga yooyu sa bopp yaa tàmbalee nga ni 2006 2007. waay xam nga boo bokk léegi presque 15 ans 18 ans. yàgg na. yàgg na xam nga lu yàgg du ci ñaari fan ñetti fan nga koy dindi surtout que phénomène saisonnier la cest à am na jamono boo xam ni dañu yaakaar ni géej gi baax na mën nañu ko jël dem ak jamono yoo xam ni du am mm-hmm. loolu ñun jamono jii jamono bi nga xam ni nit ñi dañu xalaat ni géej gi neex na mm-hmm. moo tax fu nekk ay bateau di génn di dem ak yu mel noonu mais nguur gi mu ngi cay wax teg na police teg na gendarmerie teg na marine teg na yu bare bare ngir fànq loolu beneen bi moo di beneen liggéey bi ñuy def mm-hmm. ndax du fànq loolu rek mooy doy mooy yombal xëy bi am ak visa yi aussi waaw dama ne yombal sax xëy bi am mm-hmm. yombal xëy bi am mooy lu mel na accord bi ñu signé ak Espagne nga xam ne nit ki mun nga fa dem te doo clandestin mm-hmm. beneen bi aussi mooy projet yi ñu teg ci réew mi nga xam ne su taxawee dana indi xëy ba jaratul nga dem nga ngay xalaat sax di dem feneen di dem feneen loolu moo mun a soppi mbir mi wante mbir mi du soppeeku ci benn bés du ñun du ñu nax kenn muy président basiru Diomaye Diakhar Faye muy premier ministre Ousmane Sonko du du ñu nax mhm. ñoom dëgg la ñuy wax parce que li ñu bëgg may yàgg ak sénégalais yi yàgg ak sénégalais yi nag li koy yàggal mooy dëgg dëgg moo koy euh, yàggal. Mm. ñu bàyyi la nga tàggatoo waxtu wi jeex na tàkk. Eh, ma gërëm la Issa bu baax a baax ci dalal bi di gërëm tamit Walfadjri te di leen masawu li fi xew yëpp. wante ñu sant yàlla parce que li ñu doon ñaan mu ngi am